insister aux de lire euh, mooy le livre de du docteur Cheikh Omar Diallo la parole gouverne le monde ak le leadership dafa am loo xamante ne boo nekkee kilifa di jël prise de parole en public dafa am loo xamante ne war nga ko xam avant peut-être sax jaar ci coaching wala média training dafay baax pour éviter loo xamante ne moo loolu moo daal suñu suñu xarit bi Pape du Sarr daaw lu ñuy wax des péchés verbaux maanaam kaddu joxuluñu ko nga jël ko parce que mënoo déglu joxuñu la ko yow nga jël ko parce que mënoo déglu ñu jox la kàddu nga bañ ko jël gën ci biir kàddu wax tarkis la bourde mu am loo xamante ne si foofu lay taxaw la bourde mooy les inepties les incongruités yaa ko si biir loolu nga def ko dafa am loo xamante ne mooy temps de rattrapage boo xamante ne bu la rombee rek dee nga mooy amende honorable boo xamante ne da nga ko war a def c'est ma chronique de ce donc la prise de parole en public dafa am lu mu laaj surtout bu fekkente ne kilifa nga homme d'état nga mhm. du lépp nga mën a wax quelle que soit la liberté boo xamante ne mun nga ko woote pour teg ko liberté googu da ngay jël teg ko fële parce que dafa am tubaab lu muy wax équanimité équanimité mooy maanaam dafa ci tenu par des frontières rigides mooy benn en toutes circonstances tu ne perds pas ta sérénité mais tu es d'égale humeur mm-hmm. mooy que quel que soit alpha lu la indi bu sa bopp lañu woo c'est-à-dire on t'a pas appelé parce que tu es Ablaye Der mm-hmm. on t'a appelé parce que tu es le directeur de c'est la fonction qui est mhm. appelée mhm. boobu bu ñëwee dafa am lu muy représenter te fonction boobu lu muy représenter en termes d'état même si l'état est laïque mais si biir il y a loo xamante ne la lecture et les politiques et l'action président lu mu réagirait automatiquement c'est politique mhm. ce n'est pas administratif parce que du point de vue de son <coughs> bilan il est élogieux président wax na ko ko mais du point de vue de son expression il y a une faute donc tey la prise de parole en public dafa doon loo xamante ne bu dee kilifa nga nga nekk politicien quand tu prends Gadiaga qui s'exprime très bien. macha allah oui. macha qui s'exprime très bien c'est un maître de la parole boo ko xoolee da ngay xool c'est un maître de la parole. <laughs> Ah, les les les chiens ne font pas des. waaw mais mais mais loolu ah. tax mën na la ah. il est important fu mu jaar. waaw mais c'est pour cela qu'il ah, est important am na man saa yuy wax am na ku may rappelé. non loolu tax ma ne la. il est important son mentor ex mentor ah, ex ah, waaw waaw mais day <laughs> important mais day important par exemple bu fekkente ne. yaa ngi si yaa ngi leen Charles mu. mais boo nekkee kilifa. Uh-huh. boo nekkee kilifa il est important. oui oui dans la prise de parole en public non seulement tu fasses appel à des compétences mais booy dem ba nga xamante ne ni ngay waxal. dafa am loo xamante day invoqué day woote seen culture am ma woo Gadaga ne ko Gadaga man damay damay di déclaration comment je dois faire ça parce que tu parles à des sensibilités mais tu parles aussi à ce qui est interdit il y a des il y a des limites mmh. et ça je pense que c'est une faute maintenant aussi beneen affaire day woon euh, il faut aussi mooy je comprends ce que Cheikh Yérim a dit dafa am solo Parce que comme je l'ai dit ce matin, que celui qui n'a jamais mal parlé lui jette la première pierre. Il est arrivé à tout un chacun, justement, de tenir ay discours yoo xamante ne qui ont choqué. ah yow bu ba bàyyi yow bàyyi naa la ak France bàyyi naa la jox naa la pharmacien bi la jógee. allez malal. te tabax sa